Ibrahima Sall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM président ASRED euh, ñu gis ci benn communiqué euh, ngeen ci wax ne dafa am benn euh, détenu bu nga xam ni dafa bëggoon faat boppam maanaam dafa bëggoon a xaru mu tudd Ibrahima Danxa tey jii lu ñu mën a jàpp ci état de santé ndax am na amélioration. état de santé vraiment maa ngi leen di nuyu d'abord di rafetlu seen liggéey bu baax di wax ni ñu ngi leen di bàyyee xel seen i programme am na solo. te naa ko wax ci nasaraan mais Ibrahima Dianka mhm. moom vraiment mi ngi ci jàmm ju bëree bëri mhm. yàlla def na mucc na ci musiba googu ndax musiba boobu li tax mu mucc ci mooy yàlla moo def bi trois heures ba quatre heures du matin jotee si la doon jéem a xaru ndax xolam naqari na bi mu yeewee njàmpe yi ba takk ci putam ka mu bokkal nekk si la dégg ay bruit mu yeew rek daw fëgg bunt bi garde pénitentiaire yi daw si dimbali ko Mm. mais buñ ko dimbali woon kon heure bi kenn kenn waxaat ko yàlla def euh, génn na ci loolu. kon mm. daal euh, justement lan lañ mën a jàpp ci li waraloon euh, mu def jëf ji. wala mu jéem lii waaw xam nga moom moom moom day yëngu ci affaire ay musique ay organiser ay ay wàllu culture organiser ay événement mën a ko sax si wàllu musique sax ñu yu bëri sax woon nañ ma d'abord. Mm. bi ñu déggee tur bi xam nañ ko ci milieu boobu mu nekk influenceur xam nañ ko bu baax. moom dafa dafa doon tëgg benn soirée léegi. benn copinam doon tëgg tamit benn soirée léegi pour mu bëgg a soirée nit ñi ñëw mu envoyé ko message di ko mhm. intimider mel ni dafay saboter soirée léegi nag copinam bi mu gisee loolu mu dem yóbbu message bi ci alkaati yi bi ñu xoolee message bi rek ñu ne message bi affaire u terrorisme la mm-hmm. loolu la loolu ci gàttal loolu lañ ko jàppee moom nag ba léegi moom loolu la nanguwul maanaam loolu la loolu la accepté wul d' abord mm-hmm. biñ ko jàppee loolu daf ko naxari daf ko naxari tellement fu ne joytu na ko mm-hmm. bu loolu weesoo it mu ne téye biñ ko téye ci ci ci kaso bi muy ñaari at daana ko nee na loolu it du du yoon daf ko daf naxari mais également conditions yi nga xam ne ñoom la ñu nekk muy surpeuplement bi également loolu mooy boo boolee loolu moo xam ne nag moom li mu laaj mooy da dafa yàgg wax ne nañ ma àtte nañ ma defuma dara man defuma dara donc mm-hmm. nag bi mu demee ba benn jamono d'après xibaar yi ne daal moom dafa préféré xaru que dund daal parce que niñ ko téyee ci kaso bi non seulement neexul mais nañ ko jàpp yi dañu bafoué ay droit am ak dignité ba mm-hmm. pare bi ñu koy wax quartier de haute sécurité foofu ñaari doomu aadama buñ fa yóbbu rek nit ñi dañ naan i kooku de raykatu nit bu mag la kooku de bandi bu mag la par foofu la ñuy wax quartier mbiru terrorisme sib dafay rëcc say mbokk dañuy jaaxle nit ñi si biti bu ñu déggee ne yaa ngi foofu dañ naan kii li mu def dafa garaaw loolu lépp day travailler individu bi psychologiquement bu fekkee ne nag de l'homme ndayu charte a a jàppe mm-hmm. euh, a def tey ba mu am ay solution waaw xam nga moom sax am na beneen nigérien boo xam ne mi ngi foofu ci kaso bi ñu koy wax Gréding Oko def na daanaka juróomi at kenn attew ko amul mhm. mbokk amul avocat amul dara xale mineur boo xam ne daanaka fukki at ak ñett kooku dan da koy yóbbu bu ñu naan ay terroriste lañ ko am na benn alkaati boo xam ne tamit dañ ko raje raje bu ñaaw a ñaaw yóbbu ko foofu moom it si grévistes yi la bokk donc du Ibrahima Diankha rek loolu dafa baax ñu leeral ko mbooloo mi bëri na ci ñi nga xam ne ñi ngi grève mais li nga xam ne tey moo mën a saafara lool mooy tey boo xoolee université Cheikh Anta Diop fi ñuy jàngalee wàllu yoon foofu dañ ne at bu nekk rek dina génne maanaam deux cent maîtrisards ñoo xam ne maanaam mën nañu nekk ay attekat wala ay lawoka wala xeet yooyu noonu mm. ñu ne ah Sénégal li fi am ci ay attekat rim bi rombul cinq cent vingt cinq attekat ñu ne loolu pour dix-sept millions de Sénégalais loolu doy na waar bi ñu ne li fi am ci avocat bëriwul li fi am ci greffier bëriwul ci réew mi loolu moo waral nit ñi bu ñu leen jàppee pour ñu atte leen ñuy yeex boo jëlee xam ne moo remplacé Samba Sall bi yoroon dossier Adji Sarr bi rek boo demee cabinet am li mu yore ci dossier toll na ci six cent cinquante dossier boo xam ne benn bu ne dañ ko ko dénk ñu ne ko defal enquête bu xóot nga wax ñu nit ki ndax moo def wala deful moom bu paree sax ba jébal ko ki ka santoon muy waa parquet ne leen ah man de la ngeen ma santoon def naa ko mm-hmm. léegi joxe leen seen xalaat dossier bu ñëwee rek dañ koy teg foofu ndax procureur ña koy jàppale ñu leen di woowee ay substitut lim boobu dëkk bëriwuñu mm-hmm. léegi dossier bi ci parquet bi atas ñaari at balaa muy ñëwaat ci juge bi mu jël gis ne loolu lépp ay jafe léegi ñu ne saafara si mooy foog ñu tabax ay tribunal yu bëri benn ñaar ñu recruter ay attekat attekat yu bëree bëri foog ñu lijjante leen maanaam nguur gi loolu responsabilité état la mu recruter ay magistrat recruter ay avocat recruter ay greffier tabax it ay kaso yu bees recruter personnel pénitentiaire bu day parce que mille neuf cent soixante ba léegi nguuru Sénégal mës ta tabax kaso mm. ñi ngi nag waa Sénégal naan leen kaso bi nekk jam naaju dañ ko tabax kaso bi nekk kaso boobu affaire mbiru Hissène Habré moo ko taxoon jóg nguuru Sénégal mësul teg benn muul tabax kaso loolu loolu man maa ko wax te je nit ñi ba léegi amuñu ay éléments de réponse par rapport ak loolu donc loolu mooy li préconiser comme solution. tey ñoo ngi doon wax tamit ne euh, bracelet électronique dina ñëw doon wax ci réforme yi nga xam ne dinañ ko andi ngir ñu désengorger prison yi euh, lu ngeen ci dégg. waaw xam nga mbirum bracelet électronique yi ministre bi moom dafa toogoon sa jamonoy corona te corona sax dañul mi ngi fi ba léegi boobu corona bi métti ñu koy deux mille vingt bi ñu nekk nii balaa décembre ku dugg ci internet nga tàppe ko dañ ko gis mu ne balaa décembre incha allah bracelet électronique yi dina effective ni nit ñi dinañ ko gis ñi ngi koy testé invité nañ directeur administration pénitentiaire mu expliqué ko ak ñeneen ak yeneen mais bo ba léegi ñun li ñu jaaxal mooy koppar yi mat na lépp mat na nee na ñu testé nañ ko ci yenn détenu mais ba léegi mbir bi maanaam ñun gisaguñu nit ku ko takkal ne kii te foofu tamit fàtte naa ko wax ci nasaraan hmm. maanaam ñun aussi la ñuy bañ ci bracelet électronique dafa am luy ñuul si sow mi. mooy lan dañuy bañ bracelet électronique ñu def ko pour ay Karim Wade ay Khalifa ay Barthélémy Diaz. ay lu luñ ciy jublu nga foog euh, pour euh, surveiller seen i adversaires politiques. waaw c'est que xam nga bracelet électronique yooyu boo xoolee dañ mën nañ ko sa defar pour des raisons purement politiques nga xam ne xam nga doomu Ibrahima Sall du ko bénéficié. Hmm. doomu maire bi di gar di hmm. jaay jaaf du ko bénéficié. Ah, mu doon luxe daal. waaw mu doon luxe boo xam ne dañ naan daal borom dara jëy rek lañ koy takkal. loolu hmm. aussi ñu ngi siy ñu ngi siy ak nguur gi na si ñëpp yem ci sàcc ginaar ak ki sàcc portable ak par ñi sàcc ginaar ak ay nag ñoo gën a sonn dinañ leen dóor ba seen bopp toj te réew mi ñii di sàcc ay milliards ñooy ñooy takk costume di dawal seeni oto di takk si xale yu rafet yi di nekk ci pavillon spécial dara nekk pavillon spécial dërëm du leen fee moo tax ñaari sàcc dañu daje woon si APA bi benn sàcc bi ginaaru tiir la sàccoon ñu dóor ko ba bopp toj beneen sàcc bi yéeg oto mu ko man de dama sàcc woon dañ ma ba sama bopp toj mu ne ko nan laay def ba mucc ci dóor yi beneen sàcc bi nekk ñëw rek nga sol mbubu politicien mbubu mooy galaaj bi gën a wóor boo ko solee rek <laughs> mu nekk ah moom it mu dem mu wan ko yoon bi mu sol galaaj bu politicien commencé tamit tabax oto tabax kër takk ay jabar donc eh? loolu misaal la misaal la buy wane ne dëgg-dëgg réew mi ñi nga xam ne ñooy sàcc ay nen ay akara kaani limon ay sëx ay ay ay ay xar ay nag ñoom la ñuy jàpp dóor leen vidéo leen xawi seen sutura dóor leen dóor dóor dóor te li ñu sàcc bu leen jëriñ fan te ponkalu sàcc yu yi nag ay costume la diplomatique di pasar pasare alalu réew mi te kenn du ko wax. kon da nga bëgg ne prison pour néew ji doole la. mais loolu moom mooy dëgg deux poids deux mesures yow nit nga gis ku bokk ci nguur koo xam ne ci nguur la bokk ñu jàpp ko yóbbu ko kaso xam ne def rap of nag joxuñu fi boobu lan la wane ay nit ñu sàcc dërëm fekku leen kon tey am alal daal mooy foog nga politique galaaj bi gën a wóor pour sàcc mooy foog nga am yëre mbubu politicien mooy galaaj boo xam ne ku ko sol rek jaru ngay dem si sëriñ mooy rëcc nga ci wàllu Euh, ay dóor ak ay xoxatal ak stigmatisation. tey ñu wax tamit ci grâce euh, présidentielle yi ñu gis ne dañoo ne am na ay critères yi nga xam ne détenu bi dina ko remplir ngir mu mën a génn waaye gis nañ ne dafa am ñi nga xam ne dañuy faat ay nit ñu gisaat leen ci mbedd mi du yàgg nga dégg ne def nañ jëyoo ni ay récidiviste la li ni tamit nan lañ ko mën a jàngatee. waaw xam nga ñun grâce bi moom ñun grâce moom yoon dafa ne article quarante sept bu constitution moo ne ci benn baat bu gàtt kii di président de la ñu fal ko moom am na droit mu gracier ku ko neex ak waxtu bu ko neexee loolu dafa leer nañ hmm. léegi nag loolu daf ko dégg kuréel gu ñuy wax direction des grâces et des affaires criminelles juge Ben Abdelkader Yaxam lay jiite ko muy kuréel goo xam ne dañ ko installé biir ministère de la justice soxna si wax man sax sori naa sama wax te am na loo xam ne am na solo te waxuma ko. Mhm. asret lañ ñun ab association lañ boo xam ne dañuy cotiser ay ñaar téeméer ay téeméer ay juróom fukk di def suñuy réunion lu suñuy seize nguur dimbaliwuñu kenn dimbaliwuñu fu ne ñu fay yuuxu di tukki fu ne si Sénégal di dimbali président mais am na kuréel gu fi nekk boo xam ne ñun asret li ñuy def ñoom ñoo ko war a def par dañ leen jox koppar yu doy muy ONLP observatoire national des lieux de privation et de liberté est que mës nga leen dégg dégg nga leen kañ nga leen yow tant que journaliste kañ nga leen di gën a dégg ñu xotti ormam toroxal ka biir kaso ñu génn def conférence de presse te dañ leen jox oto yu rafet mhm. jox leen budget bu doye doy jox leen koppar yu doy tàggal leen ay passeport fu leen neex ñu tukki ci réew mi te doo leen dégg ñu wax te ñun ab association lañ boo xam ne je défie quiconque que ce soit rajo laay wax amul na koo xam ne mës yëkkati sa koppar ne lii maa ko financé affaire ñun suñu propre xaalis la liggéey donc kon ñooñu ngeen war a waxal ne leen bracelet électronique yi dégguñu leen ñooñu ngeen war a waxal ne sàcc yi ñuy jàpp di leen dóor di leen vidéo ci internet ñu leen di wane ci poste gendarmerie yi di xam sutura di violer article onze bu déclaration universelle des droits de l'homme lu ñu jug ci ñooñu kuréel googu ñoom la nguur dénk kaso yu mel ni asret dàq ñi fa nekk ñëpp te xam ne dañuy lekk xaalis liggéey ñu dërëm ci réew mi. waaw c'est vrai que duñu communiquer parce que ñun ñii jéem ba moom ñaari option rek ngay am. Mm-hmm. dem nga ànd ak nguur loo bëgg nga am ko nga am oto am xaalis am am am kër am lépp option boobu moom dafa yomb ku mu neex nga dem nga jébbal beneen bi mooy da ngay nekkal yàlla rek doo am dara ñu di la stigmatiser di la saaga di la traiter de tous les noms mais loolu structure la boo xam ne dañ leen jox koppar yi doy pour que ñoom ñuy sàmm kase ñoom nañu lijjanti affaire grâce yi demal nga laaj leen question boobu sax du ma si tontu d' abord demal ñoom seen bopp demal si ñoom en tant que journaliste ni ngeen def ba contacté jéem nañ ko jéem man mi personnellement jéem naa directrice bi la dame euh, voilà donc boobaak léegi amunuma ko am ay at sax mën naa ne xam nga xam nga ñoom seen kuréel googu dañ fi génnoon demoon tukki si benn kaso bu nekk ci àll ñu am loo xam ne dañ ko dénoncé woon si ab prison bu ñu ñëwee dañ leen xoxotal xoxotal bu méttee m méttee li révélation exclusive fii laa hmm. daam génnoon na fi di fi jéem a def benn sortie dañ ko woo xottal ko yemale ko place am boo xoolee boobu ba léegi yow bu dee gis nga benn vidéo boo xam ne wax na wala dénoncé na condition détaché man ma démissionné si affaire bi ma nekk te ñoom dañu war a def rapport rapport si prison yi di bind rapport di xamal nit ñi lan moo xew ci kaso yi mais loolu bu dee dañ la dénk yow benn structure jox la alal yu weex tal pour nga l kaso yi la oto jox la moyens yëpp ak wax yàlla ñooñu la ñu war a dem laaj leen grâce ñooñu war a la ñu a dem laaj leen bracelet garab ñu lenn rek lañ ci wax bu ñuy bàyyi ñu bañ a yi nga xam ne da leen di bàyyi takkusaan balaa timis ñu dellu sawaat si kaso bi wala nga bàyyi train express yi nga xam ne dañuy dem jam naajo balaa fukki client ne ñëw nañu bu ñuy gracier ñu gracier ñoo xam ne am nañu mérite ñu gracier leen parce ki nga xam ne da doon xeex si si koñam mm-hmm. yàlla suñu borom def ci kaw xeex bi mu jël bakkanu nit ci xam nga rey nit rek dafa garaaw ñu yóbbu ko kaso mu tëdd fukki at ñu ne ah kii njuumtee ko dal du bandi du agresseur lu raykatu nit ab téer la woon bu doon liggéey seytaane dox si digganteem xaritam hmm. mu jël paaka jam ko gannaaw téye nañ ko fukki at ñun nañ ko baal fukki at yi ñu may ko chance si loolu moom mooy chance bu base mais doo gracier ñoo xam ne nii da nga leen di gracier cinq balaa ñuy julli timis nga gisaat leen si kaso donc booy gracier gracier ñoo xam ne vraiment dañu am mérite nguur gi tamit Sénégal am nañu cent trente mille hectares de terre cultivable cent trente mille hectares de terre laa la yoo xam ne mën nañu béy ñu am plus de douze mille détenus xale yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi di entraîner di tëdd di nelaw ventilo yi di leen ëpp ñu war di leen di jox ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki dërëm di leen dundal ñooñu administration pénitentiaire war na mën a lënkaloo ak Prodac ak ministère de la justice ministère de l' agriculture de l' ñu ne nañu xalaat ci volet réinsertion sociale ñooñu nan lañ leen di liggéey loowee nan lañ leen di bay loowee parce que la peine dafa am li ñuy wax double vocation nit ki boo ko jàppee mhm. moom dafa def obstruction aux règles maanaam def dara loo xam ne yoon daf koy tere ñu jàpp ko yóbbu ko ko kaso dëkk yow kat dañ lay yoon daf koy tere dinañ la yóbbu teg la ay dates ñu ne nag après nag dinañ favoriser sa réinsertion sociale li ñuy wax réinsertion sociale mille neuf cent soixante ba ñaata at la mësu am budget na nit ñi xam leen jox ay information de taille. dëgg la xam bi nga xam ne mooy la deuxième mission de l' administration pénitentiaire mësul am budget nit ñi mësuñu xam lool nit ñi mësuñu xam ne réinsertion mooy deuxième mission administration pénitentiaire te amul budget léegi yow dañuy poser wu question l' administration que li ñu def en terme de réalisation ñoom na yan pexe lañ def yan jéego la ñu def ba réussir loolu alors que nit loo dénoncer dénoncer il faut reconnaître que des efforts considérables déployés nañ ko mm-hmm. en termes de réalisation pour alléger la souffrance des détenus yàlla dëgg rek la bëgg maanaam bu ma la yóbbuwoon ci yenn prison yi nga fa def ci ay bâtiment def ko fa ci ay caméra de surveillance jënd ay nag defar usine buy defar omo saabu yenn détenu di fa liggéey mais loolu alal ju mais xam nga loolu lu tax muy naxasaay mm-hmm. parce que longue détention yi ak surpeuplement mooy fukki nit di gas fukki di suul di suul te loolu bu yàggee day décourager annoncé woon nañ ko fi ne dañuy gi nga xam ne dafa cher lool ci ñoom. waaw xam xam nga tamit baax na trop ñu leeral restaurant yi tamit xam nga xam nga restaurant yi ay xeetu la mayga yoo xam ne ñoo nekk ci biir kaso bi comme tey nga añ ba pare sa kër nga ne ah man de suuram nga yor sa juróom fukk wala sa juróom benn fukk nga dem si mayga bi sa benn nen ak sa pomme de terre cent ñu defal la si mburu tuwal la si tuuti mayonnaise nga mottali ko loolu yow am nga si droit yow yaa am sa xaalis borom kër gi jox na la añ ba pare léegi benn détenu bu nekk dañ ne nguuru Sénégal dane ñaar téeméer ak ak ñaar fukk ak fukki dërëm lañ la jox kat mooy sa ndékk mooy sa añ mm-hmm. mooy sa reer boo feebaree sax paracétamol yi ngay naan si biir loolu la dugg ñu tegee ko nële soo yeewoo daal garde yi dinañ la ko jox léegi nag ci biir euh, li ñuy wax service social ak ay chef de cour garde yi ñoom xëy na ñoom am na ñu ko doxale ba lënkaloo ak ay détenu par marga yooyu mayga yooyu ay détenu ñoo ko gérer ak ay garde ñu def fa ay ay ay mayga ci biir yoo xam ne nii yow bu fekkee ne say mbokk dañ la indil xaalis par prison détenu yi seen mbokk dañuy dem yóbbul leen xaalis mais xaalis bi doo ko téye si loxo dañ koy bind si papier lay doon nga ñëw tey nga am fa doom nga ah, nga dem nga ne maa ko am defar daal léegi buñ la joxee ndékki ba pare boo yeewoo yow mën nga dem si ga bi nga defar sa kaasu meew bu far defar sa liibaru mburu defar sa ñaari nen def sa pompiteer deux cent ndékki ba say géwélu maam di la tàgg loolu yow la yow yaa am sa xaalis mais nag dafa cher parce que li tax mu cher mooy la ñuy jaay ci biir kaso yi loolu dafa cher parce que boo xoolee mënul yi warul mën a yem njëkk ak lu ñuy jaay ci biti si lu xel nangu ñoo xam ne caabi daf leen féete ginnaaw demuñu dikkuñu ñu bëgg la jaay euh, benn paquetu cigarette téeméer te si biti muy jar téeméer bëgg jaay potu coronavirus sept cent na subventionné boo amee deux cent cinquante war nga mën leen ndékki lu neex nga ndékki ba suuf ministre loolu responsabilité administration pénitentiaire la parce que ñoom ñoo loolu dans les prisons suivant le règlement des des des établissements pénitentiaires. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Ibrahima Sall euh, jiite ASRED. maa ngi leen di sant di gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant.